ilayka yaa xayral bariyati salaam xadimika allazi kafaytahul malaam ilayka yaa xayral bariyati salaam xadimika allazi kafaytahul malaam salla alayka abadan ma salaam filaali wala saabi rabbuna salaam husta maqaaman duunahu kullu maqaam yaa nuura kulli haabidin saama waqaam anta alladi axrajana min azalaam bika li nuuri man bil kalaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyoo fii ci kër sëriñ Touba gi jàkkaarloog jumaa ju mag ji di jiital ci nuyoo bi ak cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir xalif général des Mourides di ziyaare itam Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Chouaïbou Mbacke mi nga xam ni teew na ci jataay bi. ànd ak sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah sëriñ Cheikh Abdou Latif Mbacké ak sëriñ Saliou Mbacké ak lu takku ci bokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni ay jëwriñ lañu jublu gi nag mooy ndigal loo xam ne mu ngi bàyyikoo ci xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadou muntaxa Mbacké muy bisub xasida bu mag a mag a mag boo xam ne fas nañ yéene amal ko ci dëkk bu tedd bii di Touba bisub àllarba war doon benn wala ñaari fan ci weeru muharam wii ñu jublu atum junneeg ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñetti ci gàddaay gi di dëppoog 11 ci weeru août atum 2021 ni ñu nosee liggéey bi nag ak ndigal li dinañu bàyyi kilifa yi ñu jottali ko dinañ jox sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou Latif mu ubbi kàddu gi bu noppee sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara yi Hizbut Tarqiyyah dana indi leeral yi ak ndigal li ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké diglee bu ñu noppee dinañ jox Serigne Moustapha mu Serigne Mahmadan mook Serigne Aline Diop dinañ wax ci turu Serigne Hamsatu Mbacké moom Serigne Chouaïbou ak mbooleem ahlu xasida bu ñu noppee jox Serigne Abdoulahat Bousso mi nga xam ne moo fi teewal daayira Muxaddamatul Xidma ndax liggéey bi ci jumaa ji lay tàmbalee ak li ko wër mu joxe ci ay kàddu su ko defee woote bi nag dina jëm ci mbooleem bokki taalibe ak mbooleem kuy yëngu ci xasida ak kuy jàng xasida ku koy durus ak ku koy yëkkati ci lu wér fu mën a nekk ci biir rëdd réew mi na xam ni ndigal li Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké joxe tàbbi na ci biir loolu. loolu li ci am solo mooy fu taalib bi mën a nekk jàpp na bis bi yaa tax sëñ Mountakha di ko woote jàpp ne yow la sëñ Mountakha bëgg dimbale tax muy woote bis bi te ndimbal lañu fekk loxol boroom kon kenn ku ne fam toll na ni waaje ki mën a jàng genn xasida ba kenn ma ke mën a jàng téeméeri xasida ke mën a jàng ñetti junni way ci bis beeg lu ne lu ci waaye mën na ko def ku mën a ñëw itam nga ñëw bu wisi ba noppi nga defee ko fii foo nga xam ne mbooloo dañ faa daje ñi xam ne foofu mën nañ mbooloo te mën nañ faa jàngee mën nañ leen faa berdeele nañ jàng loolu lépp seen danañ ci egsi date waajtaay yi mi ngi ñëw dañ koy nas ba nga xam ne fu fi mbooloo nekk danañ ko xam dañ leen di digale ñu jàngee nii danañ ko xam jàngin bi na muy tuddee lépp danañ ko digle teg ko ci yoon woo xam ne ñëpp koy xam nañ ko war a bernde yi na war a demee dañ ko teg ci yoon wu wér woo xam ne ña war a toppatoo bernde yi ña ko war a togg dañ ko war a andi dañ ko war a yóbbul lépp lu ñu nas la di ci am solo daal mooy yéeg-yéeg bi rek yéeg-yéeg bi suñ mu tax am daal wàllu na ko nu itam nañ fa séenam suñ yéeg-yéegu bopp kenn ku ne daal nga jàpp na si yëfa jàpp na ci mbir mii ci la ci la la sëñ bi bëgg a jaar la sax defaru ci la sëñ bi bëgg jaarale sa mucc nga nga fabee ko noona yëkkatee yëkkatee ko noona booba bu ñu ko defee baat bi li ma waxoon rek li ci sëñ bi nas xalaat ko ci bëgg ko ci bu ko amee nun liñ bëgg lépp dañ koy am te yëgal kon na ko sëñ bi bëgg nañ fexe ba defee ko noonu rek te loolu nag yéeg-yéeg rek la yitte rek la yitte rek mu taxaa da koy wax dañ ne mbir lu mu rëy rëy buñ ko nasee te teg ci yitte luñ ci bëgg mën na ci am waaye nas ak yitte nag moom mënta ñàkk ci mbir lii nag moo laaj nas ak yitte nag kon nag maa ngi soññ sama bokki taalibe yi noonu ñii nga xam ne noonu noo war a yor liggéey bi noo war a laxasaay yor liggéey bi nan laxasaay fas yéene taxaw liggéey bi ak kenn ku ne na nga jàpp ne nag yow yaa war a taxaw liggéey bi ci bopp man nag jàpp naa ne maa war doon dawal sa Amsatu maa war doon dawal sa Yuusu maa war doon surga maa war doon jëwriñ ji duñ ma noppal duñ ma bàyyi dañ yor yar yi topp ci sama ginnaaw di ma caw may daw rek loolu nag ci loolu sëñ bi damaa gën a dóorub yar rek mu ne yaay Cheikh Yérim bi taxaw kay man xaw ma lu may def daw rek warutuma noppalu waruma taxaw waruma geesu daw dem rek ñaan ànd ak murit yëpp du dem nag du topp ci seen ginnaaw nag moom daal li ma waxoon démb li ci sëñ bëgg na ci am li sëñ bi bëgg nu am ko nii tam nan ko ci am xëy lépp xañ na ci yàlla ñu ko defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah, xanaa dog ngant rek ci kàddu yi ci sa kanami kilifa waaye lenn rek lay dërloo muy baatum ndigal kon ñu ngi sant sëriñ bi nga xam ne moo ñuy liggéeyloo te defal nu taw feex boole ñoog ñoo xamante ne ànd ak ñoom ngóor du ko maye waaye ndimbalal yàlla rek moo mën a maye ñu boole la waar ne la jógal dem ànd ko ñu tedd ñii nga xam ne kenn ku ci ne fi la sëriñ bi teg ku ci xam dara di nga xam ne am nga loo xamante ne sa nguur a mayu la ko kon takkaat sa laxasaay rek te euh, xam ne liggéeyal sëriñ Tuubaa rek la dese sëriñ bi defal na la loo xam ne jomb na la ndax bëgg liggéeyal sëriñ bi baax na waaye sëriñ bi liggéey loo la moo ko gën euh, ñuy sant bu baax ginnaaw bu ñu ziyaaree te ñaanal sunu sang bu tedd bi Cheikh mun taxaa ñaan mu yàgg fi lool te di ñaanal euh, euh, rakki boppam yu tedd yii ak tamit bokki boppam yu tedd yii nga xamante ne dañoo doon ay bokk ba noppi waaye laxasaay ba nga xam ne dong bu góor góorgóorluwul ah dinañ jër cëru doon sa kilifa ba noppi dàqalaa tarbiya loolu nag moo tax ku mel noonu boo ànd moom sago dootu la yomb euh, Cheikh Mamadou Mountakha li mu nu bëggal te bëggal ko mbokki jullit yëpp bëggal ko mbokki taalibe yëpp nan xam ne li gën a wóor mooy sunu pas-pas ak sunu yéene ak sunu ñaan nañ ko tàbbal ci biir la muy yéene ak la muy fas ak la muy ñaan ndax defe naa sëñ Cheikh euh, moom sëñ Abdou Latif kaddu yi mu wax matale na damay jaaraat rek ci ay baat yoo xam ne sëriñ bi daf ma ko wax ma dégg ko bëgg nu gën ci jariñoo ndax dafa ne weeru muharram yi day muy weer wi nga xam ne mooy weeru tamxarit mu jël bisub àllarba di euh, war a doon benn fan wala ñaari fan waaye àllarba ji mu jël kon day tombe ak mercredi àllarba kon 11 août 2021 kon fukki fan ak benn yooyu muy tombel dañu xam ne mën naa doon benn pan ci muharam waaye mën naa doon ñaari fan dafa wax ne weeru muharam day day weer woo xamante ne weer wu màgg la te bari njëriñ te sëñ Tuubaa suñu borom jagleel ko si loo xam ne moom rek moo ko am ku ne xam na ne liggéeyam bi mu liggéeyal suñu borom ak at yi mu def njaareem ba mu tolloo ci waaj di ñëw ku xam dara ci sunu borom xam nga ne képp ku sunu borom am ci tànneef ñu baax ñi ñëpp ñëw nañu xam ne ki gën ci mës a liggéeyal yonent bi sallallahu liggéey na liggéey boo xam ne kenn mësu koo def ñu ànd ànd ak moom jóge gi muy jóge njaareem ñëw fii ci Touba jund layil kenn desul ñu baax ñëpp kenn desul sëriñ bi nag bëgg nu nu bokk ci ñoom moo tax tey jii mu bëgg ñu jëriñu ci jóg googu sëriñ bi jóg di ñëw ci fii nga xamante ne mooy Touba diggante Njaareem ak Touba ñu war koo gàttandu war koo gunge gunge googu nag mu gis ne lenn rekk ci yàlla mooy xaside yi ndax sëriñ bi ak màggam lenn rek la mën a ànd moom yeeyoo ànd ak moom mooy xaside yi ndax neen na xaside yi mooy jëmbi sëriñ bi loolu nag dafa laaj wu laaj ak teewlu laaj ak sell mun nañu fu kuréelu xasida ne ak jàngkat boo xam ne la muy jàng wér na sell na boole leen ko ci kon xatalu ko da koo yaatal mu ne ma nag na nga jóg balaa ngaa def dara demal ba ci sëñ xamsatu moom nag lépp lu ñuy def ci xasida moom lañ koy dimbalee loolu moom ba ma joxee ndigal loolu ci laa xam sama bopp bu baax xam naa ne kon la ma ci ñor mooy sëriñ bi faw ñu xam ne dañoo war a laxasaayu liggéeyal ko waaye tamit da am dalil moom nag ba mu ma booleeg sëñ Moustapha moom sëñ Mahmadan mii itam euh, boobu léegi gëlëmatuma xam naa fi may teg sama tànk di sant bu baax tamit sëñ Alioune Diop mii nga xamante ne ëllu xasida liggéey bi ñu ciy def te di ko def ci kilifteefu sëñ Hamsatu mii murit yëpp xam nañ ne liggéey bu mëntoon a ñàkk ci yoon bi la pàgguteefu sëñ Tuubaa ñeneen ñëpp nag ñi nga xam ne sax xëj na fa ñu nekk ñu ngi yëngu ci xasida yi nañu xam ne ci lañu loolu mooy ndigal li sëriñ bi nañu nag biir jumaa ji ak li ko wër bu ci yem nee na nee na mbooleem pénc yi nekk ci Touba ña nekk ci pénc yooyu nañu yem foofe te dundal ko foofe ndax loolu mooy tax ñiy bàyyi ko ci euh, yeneen gox yi ci biir réew mi bu ñu dikkee kenn ku ci ne it war ngaa xam fan ngay dal loolu it ak nos la goo xam ne noo ngi ci liggéey boobu ndax tey jii mboolem ñi ci xasida am na nu ñu nosoo ca Ndakaaru am na nu ñu nosoo ca Kees am na nu ñu nosoo ca Saalum am na nu ñu fu ne loolu fi ñu toll nii ñi ci war a liggéey ñu ngi ciy liggéey ñu ngi koy ànd ak ñoom kon nañ xam ne liggéey bi lépp dina tege ci yoon incha allah xasida yi ñu jàng sëriñ bi dafa bëgg kuréel yi jàng. ak jàngkat yi nga xamante ne dañuy rajas ku ci ne la ngay jàng ak sa morom la muy jàng na wuute loolu it mën naa ne ci nos la ndax tàmbali nañ cee liggéey te yaakaar naa ne lépp buñ ko tefee buñ ko tegee ci yoonu euh, ndigal rek lépp dina sotti ñuy sant nag bu baax a baax a baax a baax li nga xam ne moom sëriñ bi wax na ko ndax euh, liggéey buñ toll noonu ak yaatu gi mu yaatu wax na ñoo xam ne ah barab bi jàng xasida yi dina yaatu waaye wàññi it war naa yaatu ndax Touba gépp war nañ ko def fii waañ euh, ndax ginnaaw ni sëñ Cheikh waxee de li muy wane mooy ñun nañu laxasaayu rek wane na jublu nañu wutali sëriñ bi ndax sëriñ bi léppam daf ko jox rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun suñu léppit ñu war koo jox sëriñ bi loolu mooy mooy liñ ko ameel bor te lott nañ ci sax waaye nañ ci jeex takk rek ngir wane ne sunu ngor mat na sunu jom mën na mat na sunu passé mën na yubajjilu kulli kullakal yawma ma ghadin wa in shaa rabbi laa urad dahra idaawani sañatuñoo noppalu sañatuñoo tàyyi ginnaaw loolu itam waañ yooyu nga xam ne war naa am ci Touba gépp ñoo ngi koy ànd ak seen seex mu ngi ci jàppale ñoo ngi koy ànd ak suñu bokki taalibe yëpp ngir xool fépp foo xamante ne waañ mën na fa am buñ la limul it yow limal sa bopp te dikk te xam ne fépp foo xamante ne daara Hizbut Tarqiyyah am na fa wala fépp foo xamante ne xam Hamsatu mii ndawam a nga fa foo ci dem di nga gindi ko benn liggéey la benn nos bi la loolu kon ñu ngi koy ñu koy leeral ñëpp di wax itam ne euh, moom sëriñ bi day ba mu joxee ndigal li rek jël na ab lim ci ay nag yu tolloog arafi Touba nañu fi saasi moom laa koy tàmbalee muy ñaar fukk ak juróom-ñett boole ci ñaar fukki bërigoy ceeb ak juróom-ñett euh, bëgg lim bëgg leneen li ci des lépp mu def ko ma yalwaan ko ne ko Mbàkke man de dama damay yalwaan rek ginnaaw da ñu ko digal te te bëgg nañ cee tàbbi dama bëggoon ndugg meeg la ca waraat ak lu ñu ca mën a dolliwaat nga nga nga nga nga taw feexal nu ko mu ci lañ ci la nangul loolu may nu ko waaye bañ ca teewee ci kanamam it man nag sama sang bii di sëñ Xamsatu fa saasa sëriñ bi nee na bis la boo xam ne nag ay téeméeri téeméeri nag sax du tax mu day ci loolu kon mooy wane ne togg yi moom nañ ko jàppee li àddadin laa lee li xam moom na wër ne lu mat bis bi moom mënuñu koo am waaye nañ ci jeex takk seen xam satu ni mii nag wane na yoon kon lii daal laa ci doon dolli di wax ne euh, ñu ngi sant Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi ndax euh, bis bu mel nii ku ne xam na ne mbooloo dina bari dina dinay demee noo xamante ne ku ko saytuwul boo moytul tumuraanke mën naa am moo tax kon moom ba mu xamee ne lii nga xamante ne Cheikh Hamza mi ngi koy def di ko defal bokk yëpp mi ngi koy féete moom it am na wet goo xam ne feelu na ko ci fa saasa la jël ay matuwaay yoo xam ne ñu yor wàllu wér-gu-yaram muy préfet muy yor wàllu euh, kaaraange amu ci kenn koo xam ne woowu la jox la ndigal ngir nga taxaw ci kon loolu kon war nañ ko cee sant bu wér ndax xam na lii liggéeyam te mosu cee teggi tànkam di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi loolu te ànd ak wér euh, leneen li ci des rek ma ko ciy dolli defe naa du bari dafay jëm rek ñu xam ne teewlu gi ak yar bi ak teggi yi ak kuy ñëw nga déglu kii nga xam ne mooy sa kilifa ci gox ba nga bàyyi koo ngir ngir ngeen xam fan ngeen di dal ndax masalan boo bàyyi koo Cees damay joxe misaal rek ñu jóge foofu ñu ne leen barab sàngam la ñu faggul ñi nga xam ne ñooy jàng xasida bàyyi koo Cees euh, moo xam muy kuréel wala moo xam njàngum durus lay rafetal liggéey bi mooy nga xam loolu te jubali foofu ñi nga xam ne mooy kuréelu xasida yi nekk Touba rek seenu lim yaatu na taarkàlla loolu tamit bu ñu xamee ne barab sangam lañ leen fàggul loolu yeneen communication ak yeneen euh, waxtaan dina am yoo xam ne mooy topp ci bii te ñi koy war a def mooy ñu yor bànqaasi liggéey yi nga xam ne yii ci wàllu togg la jëm yii ci wàllu njàng mi la jëm yii mi ngi jëm tamit ci wàllu sonorisation ndax nit kuy ñëw te amaale basang wala nga amaale ay rajo wala nga amaale ay ay ay tante ak i baas boo indee day yombal liggéey bi ndax nun sunu sunu liggéey la ay bool itam ku ci indi lu doy day tax bu ñu buñ la yàkkalee it da ngay mën a séddale te loolu dina tax dara du sànku ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi it tey tey togg di indi war nañu ku ci ne war naa xam la muy togg fan la koy yóbbu ngir ñu ko yóbboo ña koy jël ñu xam ñan lañu su ko defee ñu mën cee ñu mën a fexe ba la tax mu ñu def ko ñu mën caa jëriñu te dara du yàqu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi eh, sant sëriñ bi. ñu ngi nuyu bokk yëpp ci turu sëriñ Hamzatu moom sëriñ Sohaybu ndax euh, di wax ne moom bi mu jotee ndigal ci sëriñ bi loolu day lu rëy ci moom euh, ndax ni mu ko waxee sëriñ bi rek saa su nekk dañuy dàkk mbégam ak bëgg-bëggam waaye nag bu wootee santaane ab liggéey euh, kon loolu tawféex ju rëy rëy la te it muy liggéey boo xam ne sëriñ bi ni mu ko santaanee ak ni ko fonke dafa kawe lool ba eh, du ci dikkaat sa sëñ su wax na ko waaye ñaari kàddu yi mu wax rek nga xam ne day tegtale ak fonkeel wax na ne fu kuréelu xasida xaj rek eh, na na ne wax ab lim bum ci barkeeloo ne nag ab tàmbali la waaye bis bi ye eh, maanaam yeeyoo na rey ci ay téeméer téeméer nag kon sëriñ xamsatu li nga xamee ne da ko cee uh, barkeeloo ànd ko waa uh, waa ahlu na ñëpp xam ne ab soññ la képp ku man ak foo mën a nekk nga xam ne liggéey bi liggéey sëriñ bi la te it lu yaatu yaatu la loolu duma ci xuus sëriñ dana ci dikkaat ba mu gën a leer bu baax a baax a baax waaye daal nañu xam ne lii ndigalul sëriñ Tuubaa la loo xam ne nii mën nañ cee jariñu àdduna ak alaxira ndax sëriñ bi yitte ju kawe kawe la ci moom kon jàpp naa ne lu ci waay fas te jëf ko ci danga ci am loo xam ne nii amee ko ci leneen du yomb jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe murid yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara te di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha tey ñaan suñu borom mu gën ko fee yàggal te gën ko wéral te mu mel ne kenn ci ñun ba mu doyloo baat boobu rek yem ca murit bu ne war ngaa wut dog boo xam ne sa digg ak sa borom rek la nga warloo ko bis bu ne nga wéet ak sa borom def ko def ko muy tawasul sa digg ak moom ngir ñaan sëriñ Muntaxa mu yàgg fi te wér te bañ a yem ci yàlla na fi yàgg te wér kese loolu maa ngi koy soññi sama bopp di soññi bokk taalibe yëpp ndax kat ak yàggam fi amal nañu njariñ kon yàlla na fi gën a yàgg te gën a wér di ko nuyu bu baax te di ko ziyaare te di ko ndokkeel te di ko kañ moom Cheikh Ahmadoul Mountakha lii sëriñ Cheikh Mbacké wax ci moom noonu rek la demee sëriñ mun taxaa moom waxuma nga gis jëmmam waxuma nga dégg ay kàddoom waaye sa xel bu demee ci moom doo xalaat lu dul ab murit murit bu mel ni Sëñ Tuubaa bëgg murit mel ni mooy sëñ Muntaxa yi ci des yëpp murit gi da koo muur yow kay yaay xool ba gisaat loola waaye boo ne sam xel ne càpp sëñ Muntaxa li ngay njëkka a mooy murit saadix mu mel ni sëñ Tuubaa bëgg ko ni mel soo ko xalaat nag doomi sañ Basiru soo ko xalaat mooy mooy xalifa sëñ Tuubaa soo ko xalaat soo ko xalaat waaye murit la moom sañ Muntaxa te yàlla lim bind murit la ci gën a bëgg moom la ci gën a fonk te sëñ Muntaxa doon na ko te yemul ci doon ko waaye bëgg ñëpp dooni murit moom lay waxee moom lay jëfee kon yàlla na fi gën a yàgg koy siyaare bu baax di siyaare mbooleem rakkam yi te di ko teg ci loxool sëriñ Hamsatu Mbakke mi nga xam ne mooy jëwriñu ahlu xasaayit di rakkam di soppeem di ko xam ne ku ne xam ne ne sëriñ bi amul ci moom sago te li ko waral du bokk gi murit gi mu doon moom sëñ Muntaxa te sëñ Amsa di murit ñu daje ci loolu yi loolee ma waral fonk gi ma waral sopp gi kon sëñ am sa ñu ngi di sëriñ di siyaar sëriñ Moustapha Mouhamadan ak sëriñ seex Mbacke Baye Fall moom day sëñ am sa nee na ko yaay Cheikh Ibrahim sëriñ taxaw waaye loolu yàgg na de moom ku ko xam xam nga ne ci Baye Fall koo ko xam te nag Baye Fall gi li tax mu gën a dëgër mooy da koo donn ndax baayam day sunu baay nampatal nu mel na man na wax ne lu nu mel ci sëriñ bi rek sëriñ Abdou Latif moo nu toqi di koo xam ne sëriñ Abdou Khadir daana ko yéem ci pastéefam daan wax ne man de Abdou Latif damaa xamul fu ma koy teg ndax boo ko dugalee ci sëñ bu Buso mu jeex ca takk boo ko dugalee ci Cheikh Rafal mu jeex ca takk kooke nag la doon kon Mbàkke jërëjëf eh, di ziar dong yëpp waaye ziar dong yi dañ koy teg ci loxol sëriñ Youssou Diop wax naa ko ne ko mbooleem jëwriñ yi ci yoonu murit jëwriñ ju ci ne say marami murit te la xool ba nga doy leen ñu la doxal ñu topp ci sa ginnaaw mat nañ ko de ndax murit la tànn lu ñu tànn tànnu na waaye sëriñ Yuusu moom daa am feex ndax daa ne ci tool bi di liggéeyal sëriñ bi di liggéeyal sëriñ bi ba borom te ne ko Yuusu mu ne ko Mbàkke mu ne ko doxal Yuusoo ngoog la sëriñ bi wax loolu nag taxawaalu may ko taxawaalu may la ko li li li daal sëñ Muntaxa ci fii mu toog moo la dal fi nga toog mosoo koo xalaat mosoo ko yittewoo mosoo ko dox waaye sëriñ bi daa bokk ci ay turam moom buy daal muy dal moom sëñ Tuubaa kon yuusi na sam xel dal ndax gannaaw dong yi ñu tànn képp la sëriñ bi jàppale bañ mën a dem asteeku sëriñ bi tànnal boppam kon waas bi tarixee lu dul sant te feddliwaat seen laxasaay te topp ci sa ginnaaw waru leen te ci loolu lañ nekk xam naa jataay bi daa xaw a gudd gàtt ba liñ bëgg wax lépp luñ ko mën a wax waaye foofu doy naa yem ñu ñëw ci lii nga xam ne moo nu tax a daje la sëriñ bi waxoon ca njaareem ba mu wootee ba ñëpp dama dafa ne li tax ma woo leen day yitte te mooy bis bii nga xam ne ci laa doon liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa saa bu mosaan dikk sunu borom day dolli nattu yi ful ko natt yooyee nag la saa borom xamal ne ma jeex na pay gi itam na nattu yi doon demee ni lay demee mooy at mu jot day fuya day ful pay gi ma bëgg nag ñu def ko yitte wax ca lam ca wax yëpp foofee sëriñ bi tegoon wooteem boobee rek la sëñ muntaxaa teg woote bi na murit yëpp xam ne wooteeb sëñ muntaxaa bi yitte la lu ab murit jàppoon bu bis bi jotee na ko ne tegg ci suuf te wuy si sëñ Muntaxa Sëñ Xaadir day wax ne lu ay nekk lu mu baax baax bañ ne julli jot na loolu baaxatul julli rek a baax waaye na murit yëpp xam ne lu ab murit nekk loola lu mu baax baax lu mu yitte yitte ba sëñ xaa ne soxla na la la nga nekk baaxutul wuy sëñ Muntaxa rek war kon na ñëpp wuy si sëriñ am sa nee na mi ngi woo mbooleem kuréeli kuréeli xasida yi képp koo xam ne mën nga ñaar ak ñett di daje ci barab di jàng xasida sëriñ am sa nee na woote bi sab wootee rawatina nag ñiy taxawal bisi xasida yi ñooñu ñoom forse la ci ñoom waxuma jëwriñ ji waxuma ña topp ci ñoom ku bokk ca kuréel googe rek dañoo war a àndandoo nañ doon def seen kuréel àndandoo ñëw wuy si sëriñ Muntaxa te buñ ñëw loxoy kese kuréel buy ñëw na nga daan def sa bisub xasida xamal ne moo la moo la moo la war fii moo la war fii kuy ñëw say basang bu mu des say bool bu mu des say nag bu mu des say xar bu mu des say bernde bu mu des na lépp dikk na lépp dikk bis la boo xam ne benn bis la war a doon Sëriñ mun Muntaxa waxoon na ko ci at yii ci ginnaaw muy daaw waxoon na ne réew mu ne mën naa jaaxle ba mu des réew mu am sëñ Tuubaa loolu nag nun ahlu xasida ñoo ko war a wane tey jaaxle gii lëmbi àdduna lañ bëgg sëriñ bi ne ko seppet sànni ko fu ko ko bët dooti tege ci loolu sëñ Tuubaa mën na ko waaye sëñ Muntaxa day wax ne sëñ Tuubaa de moom sàgganut fàggu na lépp waaye ñi mel ne man dañuy jàpp ne ku a da ngay toog sëñ bi indil la sa sëñ bi amul jotuk wër di seddale sëriñ bi mu fàggoo lépp da koo teg ci barab kenn ku ne sii teg sa pastif mooy tax nga jot sa wàll te nag bisub seddale baa ngi nii ko bëgg jot sa wàll waajal ci dikk waajal ci dikk waajal ci dikk bis la boo xam ne ko ko wuute wuute bu ko kenn wuute ku dem ba am ngant ba am ngant ba am ngant na ko sa jëm wuute waaye sa xol sa pastéef bu mu ko wuute ak sa alal dag ñii ci biir réew mi ñëw da leen a war ña nekk bitim réew it dikk da leen a war ku ca mënta dikk na nga dikk na ngay dikke mooy ñu mën a daje ci bis boobu nañ daje fa ñu ne tollale ko ak noonu ñu mënta daje kenn ku ci sañ gaa wéet tubaab lu ñu mën mën a tere duñ tere ko wéet man ngaa wéet wéetal sëñ Tuubaa ne ci xasida yi te xam ne jullit yi bis bu ne ñu bokk daje fu ñuy daje mooy ci néegi yàlla yi bu tisbaar jotee ñu dugg ci jàll jàkk ji jullit yëpp daje nañ ci benn barab ñoom ñëpp ñu nga béyti la maaram kon bu ñu dajee ci xasida yi murit yëpp daje nañu bis boobu la sëriñ bi woote sëriñ am sa bëgg bu nekk bis boo xam ne sëriñ Muntaxa bu génnee ba xool ñu waxu mu ma génn ci saayir di wër waaye sëriñ bi génn xool ñu du dara ci moom lu ko yomb la ndax moom sëriñ Muntaxa mi toog na ak sëriñ Saaliwu guddi di waxtaan ba mu yàgg sëñ Saaliwu na tekk ba mu yàgg mu dellu mu ne ko Muntaxa sama xel daa nekk sama murit dama nekkal xel ko ma demoon di leen seet waaye ku fa fanaan faj naa sa ajo te ñoom ñaar a ngi toog te kooku eh, mooy kii kon na murit yëpp wàcc te dikk te kenn ku ne xam ne sëriñ Muntaxa dana la xool rikk waay ku xool ci ñun na fekk nga ne ca la mu nga mel na mu bëgg nga mel nii ndax kat yàlla day ko sell lu sell rek lay nangu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ci turu sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne moo jiite daayira muqaddimatul xidma nuyu bi nag ñu di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sun borom mi nga xam ne dara taw ko mu defal nu kiimaan ci ak dundam gu raw ga mu defoon ci dunduk yont yàlla Nuux sun borom man na ko sañ na ko yàlla na ko def te nu ànd kook moom yàgg nekk ci ginnaaw mu yàgg noo digal nu yàgg koo jëfe nuyoo boobu nag ak siyaara yi ñu ngi koy teg ci loxol sunu kilifa gu tedd gii toog di sëriñ Hamzatu moom sëriñ Sohaybu moom it ñu di ko ñaanal liggéey bii nga xam ne moom la maamam teg ci loxoom ci xasidaam yu tedd yi sun borom gën koo jàppale gën koo dëgëral ba lépp lu ci yéeneem mu man koo def mbo mbooleem ñu ko àndal waaye ak mbooleem murit yëpp di nuyu itam sëriñ Youssoufa Diop mii di teg ci moom loxo loxo bi loxoom nuyoo bokki taalibe yëpp ni ko ñëpp defee ginnaaw bu loolu jàllee nag dañuy sóobu rek ci liggéey bi daayira Muxaddamatul Xidma sëriñ bi boole nanu ak yéen sëriñ Yuusu ab liggéey ba tey ñu yàgg koo ànd te lépp yàgg rafet waaye sëriñ bi it yàgg naa santaane ci jumaa ji ay liggéey ñu yàgg koo ànd lépp rafet sëriñ Xamsatu mi itam yàgg na faa ñëw di fa dundal ay guddi xasida ci jumaa ji lépp yàgg rafet kon xëy na dañoo bëgg lu gën a rafet rek waaye rafet moom am na ba noppi ñu bëgg nag kaddu yi ñuy yëkkati ñu jëmee ko ci bokki taalibe yi nga xam ne ñooy jëm si ci jumaa ji nañu bàyyi xel ñett benn bi mooy ndigalul Sëriñ Tuubaa moo leen tax a jóg bi ci topp mooy ci bërëbub Sëriñ Tuubaa lañ koy defe si dolli ci di néegub yàlla beneen ba ca topp itam mooy aaja ju faju lañ ciy wut si ñett yooyu yëpp nag dara àndu ceeg po dara àndu ceeg caaxaan nañ bàyyi xel barab bi nga xam ne fi lañ jëm si bu baax a baax a baax a baax ci waggar ko ni ko sëñ Saliou daan waxee ci lépp lu basaan di xew ci jumaa ji dafa daan wax ne nañ njëkk a bàyyi xel cet gi cet gi ndax lislaam dafa fonk ak set sëriñ Tuubaa itam fonk ak cet ba barabam bu mu mas a am ñëpp xam nañ xam nañ nam daan mel ci ak cet julli juróom sax julli jum ci daan mas a julli daf koy wutal mbubb mu bees moo xam ne dafa jóge ci ci póot set mënuta weesu loolu leneen la cay topp itam mooy ñu sàmmanteeg warma ji warmay barab bi ci boppam bàyyi xel ne nekkuñu ci mbedd nekkuñu ci sunuy kër nekkuñu ci ay ëtt waaye ñi ngi ci kanamu Serigne Touba képp koo xam ne jàpp nga ne bu Serigne Touba tooga ne ngay jàkkaarloog moom ci sëbati saayir war ma ja ko war a jox boo duggee ci barab bi war ma joojee nga war a jox barab bi te xam ne boo ko gisul it moom mi ngi lay gis kon nañ teg loolu bu baax a baax a baax a baax a baax kuy ñëw nag sëriñ bi joxe ne ndigal ne kuy ñëw ci jumaa ji na takk mask gis ngeen jataay bii ñu toog kilifa gi fi nekk wane na yoon kon nag ndigal loolu it ñu ngi koy fàttali bu ñu agsee ci biir jumaa ji itam ñi nekk ci biir di wane barab yi ñi nga xam ne fi lañ war a toog kuñ ne jekkil fii jekkil foofa te xam ne foofu mooy sa barab képp koo xam ne itam defar nga ay xéewal di ko andi ni ñu ko daan defee ci njàngum alxuraan mi rek noonu lañ koy defee waajal nañ ay barab ak ñu fay nekk ñoo xam ne lu fa waay andi teg ko ci seen loxo danañu ko sàmm ba mu àgg fa mu war a àgg te dara du ci yàqu waaye nag bëgguñu kenn di andil boppam di tasaareel boppam di séddale ndax barab ba dafa am lu mu laaj ci ak fagaru ñun ñëpp xam nañ ne barab ba ay karo la te li ëpp ci lii bokki ndaw ku ndaay di jëfandikoo day niin te bu tegoo ci karo yi mën naa indi tarxiis te tarxiis doon wut si leneen leneen dabe ko fa ñaanuñ ko sun borom yàlla na ci yàlla musal bépp jàmm moo tax ñu bëggoon looy andi muy lu ñuy naan mbaa lu ñuy mos mbaa xeeti foyteef yu mu mën a doon na ko yóbbu ca fa ñuy tuddee waañ wa am na barab bu ñuy tuddee waañ boo xam ne ña fa nekk dara du seen yitte lu may dajale loolu ak seet nañ ko war a tasaaree ci mbooloo mi te fañ ko war a jëfandikoo ñu bàyyi xelit ne bu waxtu jëfandikoo jote it ñëpp dañuy sàkk ñu génn ci yokk jumaa ji ak ëtt bi jëfandikoo fi waaye biir jumaa ji sëriñ bi dafa sàkk woon ñu moytandiku jëfandiku fa loola it mi ngi woy ba léegi ñuy ñaan itam sëriñ sëñ bii Diop sëñ Aliou Diop wax na ko léegi muy kaddu gu bàyyi ko woon Cheikh Abdoul Khadir Mbacke waaye dafa mel ni sëñ Abdoul Khadir daf ko jot li waaye sëñ Touba waxoon mooy lépp lu waay di def ak lu mu baax baax ba julli jot loola dañuy aj mbaax ga ba julli jàll kon nag lépp luñ jàpp ba dégg allahu akbar juy nodd ak ku mën a doon na ñëpp maase dal ku war a waajiwaat mu waat ñi waajiwaatu defar seeni sàppe bañ julli ba sëlmal ñu delluwaat ci liggéey bi nañ ko def ci tisbaar nañ ko def ci takkusaan bu ñu sëlmalee takkusaan te ni ko sëriñ bi waxee léegi kilifa gi dana ñëw ci biir jumaa ji muy sëriñ Xamsatu mi yeewee si mbooloo bi ñuy ñaan nag ñuy ñaan bu boobaa kenn ku nekk na xam ne ndigalam mooy fa mu toogoon doon liggéeyee fa lañ ko war a wàccee na jekk na toog foofa te woyofalal sëriñ bi bu fekkente ne ci biir foofu la ko fekkoon mu yomb ci moom su ko fekkoon ci beneen barab mu war a ñëwit ñëw ga mën a yomb ci moom ndax diggante tisbaar ak saan dafa gàtt lool te diggante boobu bu fekkente ne dañ ko fee war a tëj ci ay bayit sëriñ bi war fee ñaanal mbooloo mi ñu yawi ko te nodd du jotaat loolu nag ñun taalibe yi ñoo war a may sëriñ bi forsa bu mu ko mën a defee loolu daal bëggoon nañ ko jot li bu baax a baax waaye nag maa ngi gën a baamuwaat cet gi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax kenn ku nekk mbuusuk ndox sax ku ko naan boo noppee na ko def sa poos te xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne muxuurul xuuri fil janna kanzul masajidi wa imaratuha kon nag te yaakaar naa ne ñooñu nag ku ne soxla na ci koo xam ne nag lañ leen di jote bokk na ca setal jàkka ak dundal jàkka kon ñun ñëpp war nañoo fexe ba bañ fa andi luy taqal rawatina nag ci barabu Cheikhul Khadim bii nga xam ne fi lañ koy defee. ñuy fàttali bokk yi nga xam ne dañuy ñëw ci liggéey bi te ay soxna ni na nga xam ne noonu la sëriñ bi bañee lool ak jaxasoo ci góor ñi ak jigéen ñi. ni ñu koy defee ci njàngum alxuraan bi am na barab yu ñuy fàggul jigéen ñi ku ñëw tey jigéen na dem ca barab boobee fa la ñuy jàngee. waaye góor ñi dem ci barab yi nga xam ne fa góor ñi di jànge ndax jaxasoo bi dafa doon lu sëriñ bi bañoon lool te bañ ko lool ci barab bii ba tey kon nag képp kuy ñëw itam na bàyyi xel loolu ñuy fàttali ne itam sëriñ wax na ne jot na ndigal ci sëriñ bi ne nii nga xam ne noonu lañ koy doxale ci biir jumaay Tuubaa mag ji doxale ko noonu ci jumaa yi nekk ci dëkk bi yépp sëriñ bi mbokk yi dañoo waxoon léegi ne euh, dugg dañoo waxoon léegi dugg ci wenn bayit ñun nag am na bayit woo xam ne nii sax moom la ñu sëriñ bi loon mooy wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabitanhu bil haadil fi waaye tey nag ñu ngi lay waxaat weneen bayit boo xam ne sëñ bi daf ko waxoon ne ubaayiul yawma ar rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al waaye ñun nag tey ji ñu ngi lay seeral maa ngi koy wax ci turu daaira muqaddamatul xidma gépp ak sëriñ Afiya ak mbooloo mi fi teew yëpp ne ubaayiul yawma xadimal mustafa bi xidmatin wa asalullahu lafa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu katabtu sukran lahu ma qad rajawtu bihi kawni saijan wa sakaran wa zakara wajjahtu wajhiya fi sahri nabi sanadi lil akrami rafi'i lwahabi sakara rajawtu minhu taala sukra wa amali wa rafa'a al-yama anni ni'ma ghafara rajawtu an yamhu wa dhallata jumlataha